ak El Hadj Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yéen kaay yi nga xam ne rek moom la ñu lépp loo xam ne rek jëm jëm ne ci wàllu ko wér-gu-yaram ci wàllu ko wér gu gi di xamal ne maanaam daal baax baax yi ñàkk yi la bëgg daal mu law fépp ci réewum Sénégal Dakar Times si yéen kaay duñu xamal ne ba tax na ne ko dénk di Abdoulaye nga xamal ne moom kay dafay xam ne ne moom professeur Seydi mooy wax de nee kay jamono ji li nga xam ne rek moom moo di ñàkk gi maanaam daal bu ko xasee ba jël ñaar fukki fan ak juróom-ñett moom jàngoro covid 19 gi dootu ko mën

boo xam ne ba léegi amaguñ ci tontu ndax Sénégal itam ñàkk ji nga xam ne rek war nañ koo ñàkk Sénégalais ñu ne réewum Siin lañu bàyyee ko dañ leen koo may wala dañ leen ko jaay Abdoulaye Diouf Sarr kàddu yi nga xam ne rek jotoon na koo yëkkati daal di koy bind moom Diouf Sarr daf doon xam ne dañ leen koo baaxee waaye nag mu mel ni loole dafa mel ni nag da cey génn ndax dañuy wax ne maanaam daal lu toll ci ñaari milliards yoo xam ne rek jot nañ koo dugal ci wàllu ko ñàkk yéeg yu ni mel ba tax na nag jamono ji yéenekaay bi di direct news di xamal ne maanaam daal am na ay laaj yu bëri yoo ne amuñuy tontom ci wàllu ko ñàkk geek yu ni mel fekk jamono joojee libération yéenekaay du ñu xamal ne ak lu mën gi dinañ ko tàmb jamono ji nag am na lu toll ci ñaar fukk ak jot nañoo ñàkk seen bakkan ci jàngoroy covid gi loolee ci samedi bi ak dimanche bi la yéenekaay bi di xamal ne ba tax na jamono jëm na ci maanaam daal ñoori mbaraanum kiiraama yéenekaay gi di xamal ne maanaam daal bëri ay jafe-jafe yoo xam ne rek am na ci tey nag boo moytu semaine bii nga xam ne rek moom la ñu dënmal mën naa metti moom lool yéen kaay gi duñu xamal ne avocat yi moo di Adji Sarr nañ ne atte boobee dañu koy gagné direct xamal ne koy défendre yéen kaay gi duñu xam ne moom kay kàddu yi ne rek da ko waaye nag dafa am yu bëri yoo xam ne rek ñoru ca yoo xam ne na ca yéen kaay gi duñu xamal ne moom Aïda kay dafay xam ne ne am na ci koo xam ne kay da doon bind ab message doon ko envoyé ay kenn ci ñoom waaye nag message boobee dafa mujjee dem ci kenn ci avocat Sonko yéen kaay gi dañu xamal ne Aïda Mbodj ne googaleeg message moom kay da ko fexeel yóbbu kaso ndax bu ñu ko yóbbu kaso réew mi mën naa yëngu kenn ci avocat Sonko yéen kaay gi duñu xamal ne moom kay dafay xam ne ne lii nag ak yàq der dëgg la moom Aïda Mbodj moo xam ne lu nu mel waaye tamit du jàll enquête yéen duñu xamal ne lu jëm ci mbirum malaanum ma maanaam daal semaine bi ñu jëm dina tàng jëri député bi xam ne rek moom moo di Moustapha Guirassy ak Cheikh Bamba ñoom kay dañoo tekki seen ndombal tànk ca commission d'ad hoc

ni mel ci Dakar ba tax na réew mi li ñuy bañ mu boy El Hadji Ousseynou Ndiaye ak El Hadji Ousseynou Ndiaye